ji di gërëm aussi imam yi nga xam ne ñu ngi teew fii ak euh, délégué quartier yi nga xam ne ñu ngi tooy fii délégué quartier Assane bu Asmara mu ngi nii toog suma wet Yugo Fale mu ngi nii Lansar Ablaye Samba mu ngi nii bu Médine Demba Ndoy bu Cité Gabon mu ngi nii euh, yéen a ngi ñëw ci quartier boo xam ne nag mooy quartier Jokkul Xeer quartier bi existe na presque depuis du quartier traditionnel nag ay nit ñoo bàyyeeku ci yeneen quartier yi ñëw lu ma tëdd sanc quartier bi yàlla def alors euh, ma nekk fi délégué quartier nekk fi woon ak mag ñi ba mag ñi dem nekkoon seen keppaar nekk seen wet ba yàlla def tey ma nekk fi jumaa ji nag comme ni ko imam Babacar waxee ñu ngi ko tàmbali woon depuis 1964 dama ci delluwaat rek alors 1968 euh, ci lañu ko inauguré El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh moo ñëw inauguré juma ji bi yàlla defee ñu nam def fii juma ji war ko implanté fii am na ay mag yu fi nekkoon comme El ji Sini Sey ji Hadj Ndian ndey ji réew El euh, Hadj ñoom Jibril Thiombane El Hadj Ibra Diène Gueye El Hadj Maysa ak mag ñooñu bi ñu demee ba nam ne fii war nañ fi def juma lañu dem gis. Euh, euh, maam Omar Wade maam Omar Wade fi ngeen gis nii yëpp ci quartier bi titre foncier bi c'est le titre foncier 605 titre foncier bi yëpp presque famille boobu ñoo déteniroon titre foncier bi ku am kër fii ñoo la ko jaay juma ji ñu nekk nii ñoom si seen bopp bi ña mag ñi nammee loolu ñoo jël euh, place bi dal di ko jox mag ñi fi nekkoon fële ñu naan école xeer tamit foofu ñoo ko dagg jox ko gouvernement bi ñu man fi tabax école bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla euh, euh, euh, kii yokk seen leer ngeen gërëm di yàlla bu baax. di ko ziar bu baax a baax di ziar ñiy seetaan ñëpp fa tabarakallahu ba àdduna bi daj xam naa li imaam yi wax ñun duñu ci jaar. ndax ay ndaw lañ fekki wuñu te it yu bari fekk na boobu dikkaguñu fa tabarakallahu waaye rek li ñuy wax mooy booloo bi nga xam ni alxaaji njaga philosophie bi lislam bëgg ci mbooloo ci jumaa ak bennoo damay dama daan dégg ci sëriñ Abdul Aziz Al Aminu Tijani mu ko daan wax ni juma jaamia xam nga ci arab jaamia mooy fu nit ñi di dajaloo mu ni li ci philosophie bi tey boo dikkee moo tax mag ñi kenn du ñoom mag ñi fi imaam lim ñëpp ñi nga xam ne ñoo sas jumaa ji ca góor gi alxaaji omar ngaala jafa tabarakallahu jox uh, wax ni du jiite mukk te cheikh alxaaji abdul aziz dabbaax ñëwul jiite ba pare mu dogg jiite ak ña toppoon ca moom ba ci yéen ñii fi nekk mouhamadul moustapha mi imaam babacar gueye fa tabarakallahu mu ni bu fekkee ni nekk nga ci mbooloo mi ba yàgg nga gestu imaam gestu gisul imaam asan ndiaye sarr dina ne waa imaam asan ndiaye lu ko dal di yebal délégation ñu dem seeti ko jékkati dara jox leen ni leen dem leen seeti ko parce que amaana xëy na euh, kër gi moo xaw a dëgër wala ñu jox ko loolu mën naa feebar xanaa xamoo jullit xëy yoroo dépense mën naa feebar jullit mu ni nag nga dem seeti ko jox ko dépense dina tax mu sawaraat pour ñëw ci jàkka ji nemmi konte parce que ay jullit bu ñu nekkee dañuy nemmi konte philosophie boobu nag moo tax fa tabarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal julli jumaa sax nga xam ni ba muy julli jumaa jumaa ja mu jëkk julli awalu ma salla nabiyu bihi jamaatan alanan ma sahbihi la karami ma ngi ko jullee ca Quba fala ko yàlla ni ko léegi farataal naa ci yow ngay julli mbooloo ci jàkka joo xam ni wax nañ ci siira ni Cheikh Al Hadj Malick nee na booy dugg ci jàkka ji da ngay sëgg qadri nisfil qaddi taxawaayu nit la yoroon. waaye jamono di dem tey ba boo yëg dugg ci jàkka wala mu am eh, air plus ci jàkka moom la ñuy waajal ci jumay xeer ji ñu nekk nii fi mu ne nii nga xam ni da ngay yéeg ci escalier di dem kon bu yonent bi dina xam ni xeetam taxaw nañu kon nag fa tabarakallahu bennoo boobu booloo boobu déggoo googu nga xam ni moom la ci lislaam bëgg pour ñi julliti di daje di man di nemmi konte ku feebar ñu seeti la ku am soxla ñu taxaw ci loolu fa tabarakallahu bu fekkee mbooloom lislaam dafa taxaw te mënuñoo def loolu rek mbooloo mi des na kon fa tabarakallahu fi nekk tey ngeen taxaw ci loolu sax ci loolu yal na yàlla yàggal ànd bi dëgëral ànd bi bi xurmati Seydina Muhammad ndax euh, al aljamaatu rahma Serigne Babacar si radiyallahu anhu oustaz Ndiaga daf daan wax ni aljamaatu mbooloo mu bokk benn bëgg-bëgg rahmatun lu ñu jéem man ko. wal furqatu mbooloo mu bokkul bëgg-bëgg bokkuñu yéene azabun lu ñu jéem duñu ko man kon fa tabarakallahu jumaa yeeg jàkka yi nañu xam ni benn bennoo mooy seen chance parce que bu nee jumaa ba mbooloo di fa daje te bennoowuñu amatul chance yàlla soxlaatul yonent bi soxlaatul te fii fa tabaarakallaahu loolu moom moo fi nekk ñuy jégalu bu baaxa baax ci kàddu yi nag comme kilifa yi wax nañ li nga xam ne mooy historique gu jumaa ji muy lu am solo nag parce que dafa am ñuy ñëw ay génération yu ñuy ñëw war a nekk ndono mais ñooñu war nañoo xam seen cër turaasu majdin li maj majdi la wa aqalu parce que nit la muy donn muy teraanga di njub di lislaam mënta am lu ko gën war na mën a xam nag historique bi bu ñëwee ëllëg bu taxawee moom it xam ni man kat samay maam lii ñu ma fi bàyyil du caaxaan kon duma ko caaxaane kon loolu fa tabaarakallaahu ñi ngi leen ciy ñaanal yàlla yéen jiiti yàlla leen yàlla dëgëral lu ngeen jiite yàlla na ko yàlla nangu bi xurmati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu yi sax ñun duñu borom ñoo baax rek imaam Assane Ndiaye mii nga xam ni Saar moo topp ci imaam Babacar Guèye ñuy déglu imaam Moustapha euh, Dia di déglu ndigalam ñoo joxe kàddu gi waaye ñun sax du suñu cër imaam Assane mii moo ko waroon a wax fa tabaarakallaahu imaam euh, euh, euh, Ousmane Wade suñu wayjur mu jéggal ma de mooy suñu wayjur di suñu baay démb rek maa ngi wax ak doomam relation yi nga xam ne moo dox sama digganteeg moom ñi ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla guddal fan yi ñeen yàgg jiite ndax mag nag du yàlla waaye yàgg nag mag nag yàgg nag yàlla nag mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla yàlla buy joxe ci mag la koy jaarale mu ñëw ci ndaw kon yéen ñii di mag ñi couvrir jàkka ji couvrir diina ji yal na leen yàlla couvriral boppam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi jërëjëf itam ñi ñu fi fekk imaam yeeg yëpp jërëjëf itam waa Tëngéej Eh, fii ci jokkul xeer xam ngeen ni jumaa ji ñoo ngi koy waajal yéegal ko ci kaw loolu nag buñ ko signalé wane ko rek kenn ku ne war ngaa yëkkati la na yàlla waxoon ni boo jëlee xottu gerte nga def ko def ko ci jumaa ma tabaxal la kër ci aljana defe naa ni nag kër ci aljana ci xottu gerte rek loolu jar na lu ne ci àddina kon nag ma noonu ñu daal di jox imaam mu ñaanal rek maa doon ko Ibou Cissé bu bàyyi ñëw fii ci Tëngéej ñu tàllal loxo yi ñu ñaanal ñu tàggoo ba juma ak ak seen xarit Alxaaji Njaga Sekk